لما رأت علامة النبوة فيه بعد التجربة ديجا أبدر سنة ما لم تزويجه ما يتزوجه رك أنا آه، تك جمو تك خديجة بإذنها تندق للخديجة بابهم خديجة ما قلبت مسلم جام بين بروبلم لك سيم <laughs> بسلمو وي هذا من ديجا Eh, doomu umbu xayri doomu baay maanaam sëtu baay nekk nekk présidentu benn genre ONG daal noonu bul PAM yi ñu sant ma conférence ci biiru bi may wax nag ci xadija ak ay vertem ne ku riche ni moom meloon ni moom askanam ak taaram ak yëpp après euh, moom moo labat yonent bi amul ci benn gene wax a wax wax ba ah, ci ëllëg si rek ta taalibe siyaare si noonu am ci ci jigéen ji koo xam ne mën a ma mën a ma xadijatu yaa ñu nettali dundam bi de ak na ma mën a ma lim def loolu laa bëgg a nga takk ma <laughs> ma ne waxee bëggoon noonu de boobu yonent bi takkagul kenn xadijata bi izniha def sax virgule wala wa imaanuha nag ndax beneen kii la phrase la gëm gi xadijatu gëm yonent bi xabla jamiil ummati njëkk gëm ak mboolem xeet wi kooku moom première am la lamma raat ba mu gisee alaamata nubuwati màndargay yonent gi fii ci yoon si yàlla muhammad baada tajribati gannaaw bu mu ko nattoo sax seetlu ko ci yu bëri tukkim Sham ma ci la bokk ak la ko laabi ba waxoon ak yëpp daal yu bëri la moom maanaam ndax moom mës naa mas naa ànd ak ay morom jigéenam am ci muwaan yooyu am ko leen ñëw ne leen yéen di am na ci yéen koo xam ne yonent bi des dana ko mës a marié jigéen ñooñu daw man kii day waxtu moom moom mu ne raaqabatu xadijatun is raat fi nawmi badran tahwi laha bittisaali جربته وأمعن نظرا فيه بصدق الأخبار والأقوال خطبته منخ أييب خديجة بنت خويلد كي بنو مخزوم غير بنيو تامو تي قريش مبالي جسان أك ألال أكتار أك نكنا كوميرسانت بوم مغمك بي جيرك mouvement commercial bu mag itam ñi ci des yëpp xam ngeen ko waaye mun a raqabatu fuuglu na ko xadijatun xadija moom yonent hu moom yonent bi idraat ba mu gisee fi naw mi ci nelaw boo neexee wala nga fuuglu na ko xadijatun is ngir raat gis na finnaw mi ci nelaw badran aw weer te wii woo xam ne dana daanu laxaa jëm ci kawam bitti saalin ci jokkoo maanaam ba mu géwantee aw weer weer wi mel ni dafa fàq daanu ci kawam ca la tàmbali di seet fuuglu yonent bi wala daf ko daan fuuglu ba géwant googu ñëw confirmer ko Euh, euh, lu ko tax a yaakaar jarrabatu natt na ko ndax jox na ko euh, capital ak i marchandise mu dem ñëw am bénéfice bu yaatu correct xale bi mu ko boolee toon jox ko ay rapport yu wane ne kii du nittu ordinaire am na lu ko yàlla dencal wa am anat te jotal na nadaran ab seet fii ma ba tey rek mooy raqabatu seetu na ko bu baax a baax a baax bi sidqil axbaar yi ci dëggu solo yi information yi ñëw wala aqwaali ak wax yi xam nga jamono jooju euh, jamono ju mouvementé la waaw am na yu ñu doon séentu yu bari am yu yàqu yu bari te dafa mel ni insaan ya war na seetlu bu yàqu bëree rek il faut ak defar dina ñëw bu jafee solo ni ñi foog ak yomb dina ñëw axbaar yi bari na ci séentu ab yonent axbaar yi bëri nañ ci yu bëree bari daal jikko yi ñuy seetlu ci yonent beeg famem ak tout ça depuis Abdoulaye bañ ko jotee ak ni mu demee yëpp ñu jàngoon ko keroog moo tax ba ko seetloo nag ba xam ne waajaa ngi mu ne xatabatu labat na ko li nafsiha mu ñëw nag labatal ko boppam amana gëm na moom xadijatu qabla jamiil abaa'i njëkk mboolem bàyyi wala anjaali ak doom yi nit ñu mag ñeeg ñu simple ñëpp moo leen njëkk a gëm bàyyi ak doom yi moo leen njëkk a gëm ndax moom dafa seetlu yonent bi mag ko lool yàlla defal ci yonent itam ci mujjisaatam yi Quraysh jigéeni Quraysh dañ gaaw a ménopause mais xadijatu mi amone ñeen fukki at bi ko yonent dencé dawam yépp lu moy mariétu mo jur dom yépp muy kemtan lol amanat qabla jamiil abai wal anjali. ko to qissa ma jang, men master bu wér waa ju ma ne dama tukki ci makka suma dalal kat fi ma dalal damay janoo kaaba gi mu ne bés ma seen rek mu décrire koo xam ne mooy taxawaayu yonent ak mel ñëw sérieusement wër kaaba gi wala wëru ko soo ñëw taxaw jubloo kaaba mu ne ma gis benn jigéen ñëw taxaw ci côtéem bële mu ne ma gis benn xale ñëw taxaw ci gannaaw ma gis benn nit ku ñuul ñëw taxaw ci gannaaw muy xadijatu ak aliyun ak bilal ma ne sama waay seen dëkk bi moom am na ay soppeeku lii lan la mu ne ko kii Mouhamad ibn Abdoulaye la dafa dafay julli mu ne yàllaa ko yónni waa moo ne moom nettali bu innocent daf ko gis rek wax ko Xadijatu moo bi ñu ragalee nag werante mbool rikoona yi te yàgg nañ ko def bàyyi nañ simplifié nañ ko simplifié Xadijatu jigéen ñëpp mooy ci njëkk a gëm Aliyun xale yëpp mooy ci njëkk gëm Bilal moomeel yëpp mooy ci ñi ko gëm bira sax du nekkatul moomeel ndax moom goreel nañ ko ba muy gëm rek ci saa si lañ ko sonal bañ koy door ne xasal muhammad mu naan ahadun ahad yonent romb fa ne ko ahadun dana la de wax ko ci yaqiin am ku ñëw nettali aw aw bakar niñ koy sonalee mu ñëw jënd ko goreel ko saaba yi kenn du ñoom Omar lim foor foor bu daan décrire bu daan wax Bilaal daf naan Abu Bakrin sayiduna wa ataqa sayidana ni muy waxee Abu Bakar sayiduna la koy waxee Bilaal alxabashi xam ne démb jaam la woon dañ koo goreel ñooñu ñett ñooñu moom gan ñëw na Makka ku xamul lu xew moom gis leen ñuy julli ci gannaaw yonent bi julli booba est-ce que gannaaw rañaan la ou avant rañaan parce que julli musul dañ ci dund yonent bi حين جاء الأمين بالوحي في الغار فوافاها البدر روم الدمال فهي عون الهادي خطبته لنفسها آمنت قبل جميع الآباء والأنجال مسل ورنت ndax moom daf ko doon séntu li mu gis ci yonent bi ndem ñi ko sori ñooy faral di gis ci moom kéemtaan ak jikko yu kawe rafetement ki nakk soxnaam mu ne xiina jaa waxtu wa dikkee ne al aminu bil wax yi ca wax yu ga fekk ko fil xaari ca xaaru xira fa waafaha yàggul rek moom yonent bi fa waafaha mu dikkal ko moom xadijatu booba la ko gëm di nga bayti bii ma nga aju ci bi ko jiitu fa waafaata dikkal ko moom xadijatu al badru weer wi maanaam yonent bi raw mas dimaalin ngir sàkku dëkku mooy li nga sangoo mbàjj zëmmilu nii ak dëssiru nii teg leen ma ay malaan ak i mbàjje ndaxte ba mu jógee ca li xaaw jibril dafa rëy ndax nit ku wéet di jaamu yàlla ca nakku yàlla doon ilham malaka ñew naan ko iqra ak xista bi ngeen xam yeb ci waxin wa jamono ji jokkoo asamaan ak suuf mu ñew di lox naan ma kum kain buy wax ak mom la te bokkut ak nit ñim xam ñu foog ne jinne ko yapp mom ci bopp sax na ragal na fa hal albadru raw masdimalin. xiina jaxal aminu aminu bil waxi fil gaari fa waafahal badru raw masdiman raa maya ruumu mooy talaba rek hmm. ibtaga sàkku na fa hiya awnul haadi ala siqalil waxi ndax ci saasi la ko gëm ba pare ne ko ne ko waat naa ci Yàlla ne yow dara du la gaar ndax yow jikko yi nga amee rek doy na gàllaaj waaw jikko yi nga am rek doy na gàllaaj yow nañ ànd dem seeti suma nijaay moom dafa daan jàng téere yi muy waraqatu nawfal maa ngi ci préparé benn conférence bu léegi dafa goo ko parce que ñu wari xamuñ ko waraqa euh, ñu dem ci waraqatu nawfal nasraani ala nasraaniya jàng injil buñ foyowut nekk ci millatu ibrahim ndax Isa ci dëgg la nekkoon ba mu dégloo yonent bi rek def ne quddus quddus sàbbal la nekk lii de mooy naamus ba ñëwoon ci muusaa waaw maanaam yow yàllaa la yónni yow jot nga secret bi saxal su ma dundoon dinaa la dimbale ba nga xam ko waxtu wi ñu lay génne mu ne ko li nga indi ku ko mos a indi rek daañ ko tapage génne ko waaye nit dafa mën a gaaw a weddi lu mu xamul naa bref fa waafaaxaata dikkal ko albadru rawmas dimaarin zammiluuni dassiruuni ba yaa ba sàngoo nag foofa moo neex ndax yàlla dafa ko wax ak dafa ko wax fi mu jëm ci sas yaa ayyuhal muzammilu qum yaa ayyuhal mudassiru qum comme ku koy wax ne li ma la yónnee kuñ ko yónnee su du affaire sàngu de qum fa anzir ah mel ni ko naan ñu may kii mu ne wa anzir ashirataka al aqrabina commencé ci sa mbokk yi ñu fexe ba arrangé daje ca benn barab da nga mu wax ak ñoom kenn yàq wax ca mooy ndeysaan tudde boppam raid moom yonent bi inna raida laa yakdibu ahlahu waaw ak erreur bu dem ba gis yëf yi du ñëw di fenal ay nitam li ma gis rek laay la wax su ma leen waxoon ne ay so ay ay xeex ay soldaar a ngi fii ci gannaaw montagne bi di waaj song si dégg nga ko gëm ñu ne ko yow mu soo wax lu dul dëgg mu ne kon nag maa ngi leen di ragal loo mbugalam yàlla su ngeen ko dëddoo abu la ko tabban laka saa'iral yawm ali haada daawtana yàlla na nga taskare bés bi yëpp bu ci mujj ci taskare yow lii nga ñu doon ooy yàq wax ji rek ndax moo gën a xam ndax tontu woon nañ ne ko xam nañ ne doo fen doo fen ci saa si da ngay fen ci saa si xam nga loolu <laughs> mooy wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwan seen gëm nañ ko seen xol yi mais wetu ko seen làmmeñ ngir seen i soxla seen ak rëylu fa hiya awnul haadi fa hiya moom ak xadijatu awnul haadi mooy ndimbalal yonent Yàlla Muhammad aji jubla ji ala siqalil wax yi ci yenu diis ak wax yu gi qadiman te saasa rek yàgg na bi fiili haawal maqaali te nag na mu ko dëgëralee dimbale ko ci wax ak jëf la bés bi yonent bi ñëwee ci moom takk ko daf ko ne suma alal yépp yaa ciy def te tasarruf ñu ne daanaka daal mën nga ne xadijatu démb bi ñu koy laata maye moo gën a riche ci màkka tey mel na ni moo ci gën a ñàkk ndax jox na yónnes li bam yépp yónnes na ko def ko nanga ko daan defee géré ko nanga ko daan géré utal ma yóbbal rek ma dem jàmm so mu yéeg ci moto bàyyi def sa wax ne ndaw lu nekk ci màkka toll ci at yónent bi toll bam booba di dem ci montagne bële di ci yéeg dafa yàgg ku nekk xam ne ne fa mu jëm yàggu fa ربما جاء المصطفى وهو مغموم لأمر في وحيه مهوالي ربما جاء برنا بوديكي أي يون يون المصطفى يون تبي كدي تانا ديك تشكر وهو تمبير موم موم جملة حالة مغموم ku ñu jàqloo loola li am ri ngir mbir moo xam ne mihwaali muy tiitalaakoon mbir mu garaaw fi wax yi ci wax yu gam ga ko yàlla yan yàgg naa am yu ko gaar du wax yu gi ci boppam dara garaaw ci yonente gi waaye nag nit ñi ñoo ko doon créer ay problème di ko xatal di ko xas di ko calomnier di ko tayalloo ba mës sax sujjóotam yu yàgg yooyu mu am salte bu nekk fële gëléem gu amoon dom ba mu des yu salte ya ñu ne ku ku ñemee sotti nga xam ne sujjóot ba yàgg na soq yu jël ko sotti ko ko ñuy reetaan ba Faatumata ñëw faxas ko xas leen mais xam nga ne ab yoon moom bu doon daw moom buy commencé rek di daw waaye nag mar moomun nit gëla nit nit dafa lu naqari daf koy naqari farq nag diggante waajaak ku dul waaja mooy dana ko naqari waaye dana xam ne moom foog mu supporter ko ndax bu sottee rek li muy dox bu sottee loolu dootu am te fat makkata wane na ko mihwaal ci xëwlu ji firi tiitaanga la suñ ko tëggee mu baalaxa waasarathu mi ngi wane critère maanaam maanaam ni yàlla def xadijatu taxaw ko ci pegg yonent bi wa zaratu wa ahsanat fa hiya haarunun lahu ayyadatu bil amwaali wa zaratu dëgëral na ko wa ahsanat def na lu rafet jëme ci moom fa hiya moom xadijatu haarunu am haarun la rek la woo ngir yonent yàlla muhammad moo nekk na haaruna meloon ci yonent yàlla moussa odut mhm. bihi ba ko bam si ba ba Moussa Sakkoon yàlla dëgëralee ma Haaruna moom itam Xadijatu moo dëgëraloon ci Muhammad bil am ci alal yu bëri yi mu amoon te alal mun naa def lu baax su ku baax moom yonent bi nee na ni'mal maalu saalihu li rajuli saalihi ah, ah, alal ju baax nit ku baax moom ko ak a baax ci saa si la nga dégg ci alal dana bon nit itam ku am alal mën naa bon te ñaata ñaata la alal yàqagum ci àddina dunya baadaha jaahu al atiqu aliyun mi ngi mel ni kuy junju hiérarchie dugg maanaam maanaam toftale eh, dugg gaa yi ci lislaam xadija ngoog eh, baadaha gannaaw xadija jaahu dikkal na ko moom yonente al atiqu aboubacar siddiq baatab atiqu nag mooy kuñ goreel dana dañ ko wax jublu ci ku kanam gi leer nañ rafet dañ ci wax jubbu ci ku nekkoon moomeel ñu goreel la dañ ko wax jubbu ci kuñ goreel ci safara al atiqu ci itqu daal la jógee astaghfirullah baada jaa al atiqu aliyun astafirullah aliyun ba abu bakar aliyun aliyun aliyun summa zaydun usman baada bilaali aliyu zayd ibnu xaarisata kër yonent la nekkoon usman ak Euh, gannaaw bu Bilaal tuubee waata Aamir wa Talxatu Saadun wa Zubayrun jaawu ñoom ñëpp ñëw nañ li nay lil wisaali ngir am jokkoo gi mooy gëm yàlla wax kalimatu tawxid kalimatu shahaada ànd ak yonent bi nekk ci service am xayyan wa mayitan hmm. wa ibnu Awfin عبيدة وسعيد حمزة العم ليس يوم القتال ما نجيب نجي نجيك تو عبد الرحمن عوف عبيدة الجراح سعيد بوكو سعد حمزة العم كي بيت تخبى ليس يوم القتال كي جينك بسبب خير كم جين نقول الله الإمام الفاروق بعد أتاهم الإمام كيف al faaruqu kay tàggale diggante dëgg ak caaxaan Omar ibnu baax du gannaaw ñooñu ataaw ndax moo leen mujjatu jéem naa euh, tënk lislaam ba bés bi mu ne woon ci lay bugg a rey yonentu noppal Quraysh mooy bés bi mu texee texe gu euh, gi ñëpp xam duggul léegi ak projet bi gën a bon ci àddina génn léegi yow sa xalaat ci li moo tax ñëpp daje ñeent fukki nit jëm kaa bëgg julli pour la première fois ci am ci njëmbeel teewul lañ ko jënd bi xista bi jar soo waxaa aha ataahum ñëwal na leen umaru mooy umar faruq daqtifaayin mbir mooy aji topp wala toppatu topp si lil Moustapha ñeel yonent bi daqtidaalin mbir mooy aji enfin digg doomu léegi nag dafa équilibré xawma dafa xottantoo dóor na sëram dóor na gorob eh. léegi nag ma ci yoon wi àddulu ndax gannaaw gi moo moom la ñuy maandu ci taarix yëpp hmm, gars yi sax doon nañ ko am nañu ko bëggoon a kii daal ndax dafa ay loi yum tëral di ko gars yi di kii daal ah. mais moom kenn ragalul mu tooñ la waaye nag lu mu war a wéyal rek daf koy wéyal bañ demee nag ba Muawiyatu moom yi fi xaw a kii naan ko ah Umar ibnu Xataab amul morom mooy ne eh, eh xam naa li ngeen di wax wante tabadaru ataamar lakum niru niru leen Abu Zarin rek man ma mel ni Omar léegi waaye ngeen mel ne neen ma bugg a mel ni Omar du sotti de <laughs> maa qad ala diinu baada islaami haada qad ala kawe na addiinu gannaaw jébbalu kii ma mujj wax muy Umar bal ala daa bi diini bàyyi na déet wax naa ne Umar dafa jébbalu lislaam kawe bàyyi na bal bayit lu may wax sax ala kawe na daa kii te mooy Umar bi diini du ne Umar a tuub lislaam yëkkati ba Omar moo yëkkatikoo koo ci lislaam xool waajoo xam ne mos nga xëy pour rey yonent bi am promotion ci lislaam ba mu gi dafa naa yonent ma day dafa sama xel dafa daj nangam nangam bu alxuraan wàccee rek ñëw yoonal ko xijaabu jigéen yonent beeg affaire fidaawo ba am na sax ñu bind ci muwaafaqaatu Omar te bu xalaatee dara lislaam alxuraan ñëw indi ko booba lay gën a suufil boppam nag am na nag benn saabu xew yàlla ko natt moom du Umar bu yàlla tegalee wasf yi xam ba léegi saba yaa ngi bu jëkkër jabar ànde ba yàlla bëgg a sos doom ba fitis bi nekk ci biiru ndeyam bi ko alxuraan décrire نطفة علقة مضغة عظاما مكسر عظاما لحما ثم mu yéeme ndax toog nañ gannaaw gi junne at kenn xamul loolu ah kii bind wax yi ne fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin <laughs> mu ne ah yi fii ci mën lay jógee fi mu ne moom koy looloo ko fitnaal déedéet boo jegee lumière mooy tax nga gis boo ko soree xam ndeysaan ba mu ne wa nisaaun hmm? qad ala da bi diini dil ifdaali kay borom ngëneel yi may diine may ngëneel de Omar de yëkkatiwul islam islam a ko yëkkati wa nisaaun zaatu nitaaqi wa umul fadli umul li ayman al mifdaali ba tey ay jigéen ci teel a tuub lañ bok xam boo seetu lislaam dafa tàmbali rek mag góor xale jaam ñëpp nekk ci biir wa nisaawoon ak i jigéen kan la zaatu nitaaq mooy asmaaw zaatu nitaaqi mais zaatu nitaaqayni nitaaq bii ak bii boo ci tudd baax ndax dafa daan dagg kéem takkee mbuus mi mu yóbbu fële dagg ba yónent ci dem ak sina Abubakar war a dem ci xuntuma seen yóbbal ba dafa jël mel ni ku jëloon sa kii kaare ni rek doog ko ci lent bi takkee fii takkee fii yóbbul leen ba pare nag nekk nekk benn benn fidaay boo xam ne moom mooy fexe ba di leen yóbbu lekk te kenn du xam fu muy jaar kenn du parce que yëpp ay ut bi te moom dafay dem ak ñëw incha benn la wa umul fadli umul umu ayman almiftal kay gën a koon baada umil jamili gën a umul jamil sax euh, bu abu jalin su ma nisaun yopp yeneen jigéen sax baada haati ka gën a mbooloo moom ma tuddagu ku luhu ñoom ñëpp nag xawaalin way cher lañ ndaxte la leen cheral mooy dañoo gaaw a gis dëgg gi euh, dal di cay dugg su ma la